doo bind andi nu fi mu andi nu fi dina jaamuloo dina loolu moom suñu yoon nekku ci loolu moom moo nu moom yàlla moo nu fendi moo nu fendi sàkk nu sàkk nu dina jaamuloo kon jaam gi mun la ñàkk kon jaam gi mun jaamu gi mun la ñàkk jaamu gi mun ta ñàkk waaye nag loolu lépp waaye bi mooy ki nu doy sëriñ bi mooy ki moom suñu diggante ak borom